mbokk yi ñu leen di jaajëfal yéen ñi nga xamante ne si yéen savo seen seen leader DVT TV daleen ak jàmm ci xibaar bitim réew xibaar bu njëkk ci xibaar bitim réew dañuy wétali foofee ca bande de Gaza bande de Gaza nag jamono jii nag ñu ngay wéy di dund ay jafe-jafe yu métti ginnaaw nag bombardement yi nga xamante ne si ñii di waa Israël ñoo ko fay amal saa su ne dëkk di faat ay nit ay gone ak ay mag ci faat yoo xamante ne si faat bu ñaawin la dañuy wax ci ki nga xamante ne si moom mooy Mohamdan moom na njiit fële nga xamante ne si moom mooy ci Hamas moom nag nee ne armée Israël jamono ji nag ak crime ya nga mangai si ma ngay way di eh, ko def foofee ca bande de Gaza moom nag nee lim ci la askan daal di bëgg faat ñëpp ñoo xamantani si daan nañ fay nekk rek nee na jamono ji daal loolu la waa Israël daal bëgg waaye itam dimbal ya nga xamantani si ña ngi ko fa yóbbu nee na saa su nekk Israël ma ngi koy ngir daal di bañ dimbalee daal di dugg foofee nga xamantani si moom mooy bande de Gaza ak yoon ba nga di jaax ca noor Gaza Israël nag daal dinay teg pexe daane saa su ku fa jaar dinañ la ba tey dañuy wax ci li nga xamante ne si moom mooy ñu bari ci àdduna bi daal niñ daal di noppee ci ñaawteef yi nga xamante ne si ñi di waa Israël nag ñoo koy def foofee ca bande de Gaza rawatina waa communauté internationale ñi nga xamante ne si ñoom ay ñi nga xamante ne si ay institution lañ ñoom nag nee nañ am amatuñ benn benn crédibilité ndaxte crime yi nga xamante ne si Israël daal moom koy def ñoom ñu daal ci noppi moom daal dafa jàpp ni lii nag gàcc la bu baax a baax ci ñi nga xamante ne si nag ñoom ñooy waa États-Unis d'Amérique ñoom nag ñoom ñooy woy di jàppale euh, Israël ca bombardement yi nga xamante ne si mu ngi koy daal di amal ca ñaawteef ya muy amal foofee ca bande de Gaza ba tax nag daan nañ koy wax daan nañ leen may un mois ngir nag ngir nag nga daal di xool ndimbal ya nga xamante ne si daal moom mooy woy di dugg foofee foofee ca bande de Gaza. bokk na ci ñaawteef yi nga xamante ne si mooy way di am ñi nga xamante ne si ñoom ñooy waa Al Jazeera ñoom nag dañoo naqarlu bu baax seen ñaari journaliste yi nga xamante ne si dañoo jëlee ci ay gaañu gaañu yu metti foofee ci bande de Gaza ki nga xamante ne si moom la ñuy wax Fadilul Waxidiya ak ki nga xamante ne si moom mooy Alinda Adar ñoom ñaar ñi nag ay gaañu gaañu yu metti lañ daal di jëlee foofee ca bande de Gaza nag ñu bëgg leen a yóbbu feneen faji leen waaye armée bu Israël nag moo daal di bañ lànk ne ñoom duñ daal di jóge foofee waaye ñi nga xamante ne si nag ñoom ñoo daal di yor équipe médicale nag ñoom nag ñuy ñoom nag ñuy saytu ña nga xamante ne si dañoo gaañ ñoom nag nee nañ ñi nga xamante ne si ñoo nekk ay soldats yi ñi nga xam ñoom ñu nekk ay ay journaliste Al Jazeera nag ñaan ñi saa su nekk seen gaañu gaañ yi daan nay jéggi day buñ leen yóbbuwul feneen saa su nekk mën na leen faat dañuy des ba tey ci armée bu Israël ñoom nag jamono ji nag ñuy faatu ci ñoom nag daal dinay bari ba tako ak ñi nga xamante ne si nag ñoo fay daal di démissionné ba tax ñu daal di xëy daal di génnee ab loi di woo ñi nga xamante ne dañ leen libéroon ngir ñu daal di ñëw daal di dellusiwaat ci seen armée ba ñoom nak loi bi daal nañ koy voté ci seen assemblée nationale ba ñoom nag nee nañ soldats yi nga xamante ne si nag seen at daan nay toll ci ñeen fukki at ñu ngi leen woo ngir ñu ñëw officier nag seen at daan nay toll ci ñeen fukki at ak juróom ñii nag la ñuy ngir ñu daal dellusiwaat ci nga xamante ne si mooy ca seen armée ba ginnaaw nag bañ leen libéré ay jamono dañuy wax ci jawriñ bi nga xamante si moom mooy Yahya Sinwar ngir waa Hamas ñu ñi nga xamante si moom lañ jàppoon ba tey dañuy wax ci leneen ci ceslaay bi nga xamante si moom dañ ko dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram moom nag mooy xam leen démb ñii di waa Israël nag daan nañ fa lu toll ci juróom-ñaar fukki doomu aadama euh, ñoo xamante ne si ña ngi nekk fee ca Palestine nañ daal di Palestine daan nañ toll ci juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay doomi palestinien mu nekk loo xamante ne si ba mu waxtu waa métti la ñii di waa Israël nag ñoo ko fa def dañuy wax ci hôpital ba nga xamante ne si moom moo da nekk fële ca nord bu bande de Gaza ba foofu nag ñi nga xamante si ñoom ñooy waa armée bu Israël ñoom nag ñoo ko wër anture di koy entouré ba kenn nag du fa mën a du képp koo xamante ne si da ngaa feebar wala nga daal di blessé dañoo lànk car ni dafa ba tax nag ñoom ña nga di circuler e hôpital te nag ña nga xamante ne si ñoo nekk ca hôpital ñe nag ñoom saa su nekk nag mën nañoo daal di bombarder bile hôpital ba tey dañuy des ci armée bu Israël ñoom nak dañu daal di amal la nga xamante ne si mooy ab ceinture de feu foofee nga xamante ne si moom mooy ci ay gox goxan nekk foofee ca bande de Gaza dañuy wax ci washington post moom nag dafa daal di jëlee ah, ci benn jëwrin boo xamante ne si nag dañ ko takkal ndomb tànk mu nekk fële ci réew états unis d' amérique moom nag nee na ah, jëwrin boobu nag dafa daal di sàkku ci ki nga xamante ne si moom mooy benn Netanyahu ngeen nag mu daal def ab déclaration daal di leeral nag ah, ban position la daal def ca faat ga nga xamante ne si ñoom ña way di ko amal foofee nga xamante ne si moom mooy ca bande de Gaza saa su nekk nag dafa amal la nga xamante ne si moom mooy sunu sud waaye ki nga xamante ne si moom mooy benn ñaa moom nag wul ci la nga xamante si moom lañ ko daal di laaj Euh, Giriyona Island moom nag moom moo tegoon plan bi nga xamante ne si moom la waa Israël doon amal foofee ca bande de Gaza euh, plan boobu nag moom nag nee bu buñ ko continuer nag ba guerre bi daal di continuer foofee ca Gaza ba mu mat juróom benn weer wala nag mu daal di mat at nee na nag amatul leneen loo xamante ne si mën na koo changé ci réalité kon nag mën nañu ñoom nag daal dinay ñàkk la nga xamante ne si moom mooy guerre bi ba tey dañuy wax ci ñi nga xamante ne si ñooy waa Qatar Ibul Khazam ñoom nag ñeneen dañu daal di explosé ab bombe ca Gaza ci benn oto boo xamante ne si ay soldats israël nag ñoo ca nekkoon mu tolloon ci fukki officier ak ñaar nag ñu nekkoon ca waaye nag am na ñañ ca faat ñeneen ñi nag ne nañ leen ni blessé foofee nga xamante ne si moom mooy ca côté camp Russie bu yaa xibaar bu mujj dañuy wax ci armée bu Israël ñoom nag nee nañ am na seen benn soldat bu ñu leen daal di fàttal démboo ca bande de Gaza waaye ministre bi nga xamante ne si moom la moom yor lépp lu jëm ci wàllu santé foofee ca bande de Gaza nee na nag lim ba nga xamante ne si daan nañ koy faat foofee ca Gaza daan nay gën di yokk ba daan nay ëpp ñeent ba daan nay ëpp euh, ñeent fukk ak juróom ci ay doomu aadama ëpp na ko daal di nay tekk ba tax la nga xamante ne si ñoom lañ ca blessé daan nay ma téeméeri junni yoo xamante ne si tamit daan nay teg ci ñi nga xamante ne si dañ leen a blessé foofee ca bande de Gaza kon mbokk yi lii la ñu indi leen suñu xibaar di leen jaajafal yéen ñi nga xamante ne si yéen a safoo 500 leaders de VT TV di leen wax ngeen abonné ngeen bës ko la notification.